jërëjëf mbokk yi bëggee Walfadjri nuyu nañ leen am mbégte dellu seeg yéen seen émission làmb ji ni nu koy defee saa su ne topp gan gu bokk ci làmb wéel ko ak jàngatu làmb yu yaatu noonu leen koy fas yéene wéele waaye it bala nuy gën a sori ñoo ngi nuy ñëpp ci biir nuyoo bi ñuy dellu di ci jiital kilifa diine kilifa aada yi di sàkku seen ñaan ci réew mi di ñaan yàlla na yàlla wàcce jàmm ci fépp mbokk yi seen émission làmb ji gis ngeen tey ni nu ko defee dañu génn ànd jóg doxantu may nuyu équipe bi nga xam ni moom la ñu àndal muy alaaji Saliou Bey naka noonu euh, may bàyyi xel ki nga xamante ni mooy Ibou Gueye Ndiasse Mbow di fare ci montage bi saa su ne li waral ñu defee ko ni nag day doon jàngatu làmb yoo xam ni dina am jotaay yoo xam ni dañ koy defee biir studio Walfadjri waaye dina ci am lu yees loo xam ni dañuy jóg ànd dexontu def jàngatu làmb yoo xam ni dañ koy yaatal bala nuy gën a sori nag ñoo ngi ñaan balaa bi nga xam ni moo wër àdduna muy coronavirus yal na yàlla wàcce ci jàmm yal na yàlla wis ci ndox mu sedd guyu muy balaa boo xam ni man li ma ciy jàng damay wax saa su ne nee mi ngi ñëw Sénégal mois de mars muy ñetteelu weer ci at ni boo nee coronavirus da ngay am C muy troisième lettre alphabet Covid 19 loolu dellu si ñu ne kaa suspect nga gisaat loolu ñu ne cas confirmé nga gis loolu ñu ne couvre feu c'est dellu si ba tey it ngir am ci yaakaar ñi ngi ngi dégg ñu ngi naan confinement. ne chloroquine muy balaa boo xamante ni it Chine la jóge kon yal na yàlla wàcc jàmm ci see bi nit ñi dellu jëf ci lu neex yàlla xool ko ci jëflante yi nuyoo yi yenn saa yi doon na am nuyoo yoo xamante ni xañ na daanul dëggu ci xol yi borom dañuy misaal ngir ñu jàngataat ci xool ci demlante bi dikkalante bi yéenante jàmm réew yëpp nag gën a gëmaat seen bopp liggéey ci wér-gi-yaram liggéey ci seeni ndaw mbokk yi kon nuyoo baa ngi noonu jotaayu làmb ji tey ñi ngi ànd ak Serigne Modou Niang muy Mouniang Production bokk ci làmb def ci liggéey bon solo bari champion yoo xamante ni ci moom mii la ñu jaare mu it promoteur boo xam ni bu ñu topp liggéeyam ci biir saison bi dina bari tàkkusaan yu mu ci tëgg kon bokk na li waral ñu ñëw seet si ko bi làmb bëree tàkkusaan yooyu bër sama nijaay maa mag lay nuyu sëñ Modou. maa ngi lay fay Pape mhm. maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di sant sëñ Touba Xaadimu Rasuul di sant kilifa diine yi ci réew mi yëpp. Mhm. di sant sama turandoo sëñ Modou Diop Massamba di sant Maam Mor Baraan mhm. di leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw tey fekk fii ci kër gi ñu war a waxtaan ci mbirum làmb mhm. di masawu coono waa réew mi yëpp tamit mhm. ci li nga xam ne tegu na ci suñu kaw muy balaa boo xam ne li ñuy ñaan rek mooy ñu ñaan yàlla mu teggil ñu ko ci nu mu gën a gaawe te nag ñu comme ni nga ko waxee rek ñun ñëpp ñu dellu ci tuub ñun ñëpp nañu dellu tuub ñun ñëpp nañu dellu ci yàlla ñun ñëpp nañu sant suñu borom it ndax suñu boroom lépp lu mu la teg am na lu gën a metti loo xam ne nëbb na la ko kon li mu indi suñu kaw nañ ko sant ba pare nag te ñaan yàlla mu teggil ñu ko ndax moom moo mën lépp moo am lépp mooy boroom lépp uhuh. innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun lépp lu ko soob rek da koy dogal su waree jeexit bu dogal ba ñëwee moo koy dindil boppam kon ñun ñëpp nañu bokk dellu ci yàlla te ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci suñu kanam tamit muy docteur yi lépp li ñu ci digal ñu tënku ci ndigal yooyu ñi nga xam ne tamit ñoom la yàlla teg ci boppu réew mi ñu président de la république ak ñi mu àndal ñëpp opposition beeg ñëpp ñu jox leen cër bi ñu leen war a jox ñu jox ko cëru aatiyoo laa aw aatiyoo rasul wa ulil amri minkum nañ ko jox président de la république te du tee ñu ñëpp nag ku nekk du tee fa nga nekk nga nekk fa waaye ci mbir mi ne ñëpp àndandoo tënku ci ginnaaw ñu ànd fexe ba lii jóge fi ak jàmm ak salaam nuyoo bi yaatu na tënk jàngat yu am solo muy loo xam ne su ma koy tënk rek dama naan li góor ga waxoon bàyyi leen jàmbat yi tey jàngat kon fa tubaar fakk yàlla jàngat yi am na solo su ma di jaay bu nu toogee ci jotaay di ci waxtaane làmb li nuy doore làmb ji fi mu toll ban seetlu nga ci am waaw seetlu bi ci am mooy fi mu nekk nii mbir mi ñëw nii ci suñu kaw moom moo moo dakkal lépp ndax xam nga ne bi ñuy bi muy am euh, président wax ca la mu ca wax fekk na ñun ci moo nekkoon suñu journée samedi mhm. samedi 14. waaye ñun dañoo daal di wéer galen yëpp daal di fas yéene teg lépp ci suuf fas yéene ànd ak askan wi ci li nga xam ne dal na ci suñu kaw. laataa muy am. ñun daanaka daanaka li ñu defoon daaw benn journée moo tere woon ñu àgg fa. li defoon daaw. waaw li ñu defoon daaw dix direct yi ñu defoon dix journée yi. le quatorze boobu def nañu neuf journée. parce que dañu bëggoon ren. ñu def lu bëree bëree bëree bari loolu la ñu amoon yéene waaye comme li ma wax léegi rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam donc li ñuy def mooy jéem a wér galan yi rek te muñ ñëpp àndandoo muñ ba yàlla teggil ñu ko am na solo jaam ak pexeem jàll ak dogalam dogalu borom bi moo waral kon mu ñu dakkal làmb dakkalit leneen lu dul làmb mm-hmm. ci kanam dina ñëw ci biir dakkal boobu def ci jàngat euh, làmb fi mu toll mu ñaaw production dañu gis ay jamono amaloon nañu assise waxtaanee ci jafe-jafe làmb mm-hmm. ginnaaw assise yi ñu tànn ay nit yokk leen ci biir CNG bi ngir ñu indi seen xalaat ñooñu dem nañ ba mu yàgg gisuñu seen bopp ci fan leen cërale woon ñu ngi waat di génn ndax kon assises yi lañ ca waxtaanee am na njariñ ak it ñi duggoon génnaat ndax du mujj doon saafara sujur jàngoro. waaw xam nga man waxtaanoon nañ ci maag yow. Mhm. waxoon naa la ne ministre des sports Matar Ba moo def arrête ministériel. Mhm. dugal Gaston dugal Aziz dugal Pape Abdou Fall. Mhm. am na sax booba ñu ci doon génn ci rajo yeeg yëpp di wax sëñ Modou. li tax dugaluñ ko parce que daa far fii wala daagam nangam. xam nga waxoon naa la ne loolu man même buñ ma demandé woon pour ma dugg ci dama leen di jéggal ci loolu. lu waral nga leen di jéggal ak ci parce que li waral ma leen ci jéggal mooy président Aliou Sarr ma fa nekk. moom daf maa doy ci lépp. ba pare it xam nga lu jotul rek jotul. Mhm. lu jotul rek mooy lan lu jotul jotul mooy jotul pour ma war liggéey ci mbirum CNG jotul pour ma war a liggéey ci mbirum CNG bis bu jotee dinañ toog ma ne la jot na léegi président Alioune Sarr doy na la ci lépp nga ah. bokk ci làmb hmm. mais ci biir doxalinam am na ci loo xam ni jamono gis nañu mbër yi ñu ngi koy ŋàññi jamono gis na ñu ñoo xamante ni it amateurs yi xaw nu sàkku ci avertissement yi règlement bi gis nañu bu yàggul arbitre yi def nañu sorti ñoom it fësal seen ñaxtu ndax du li muy doxal doy na leen waaye it ndax du daajul ngeen di kon diisoog moom ci biir nekk wala doon leen waaw xam nga moom yow yaa ko wax xam nga assise bu amee ça veut dire que kooku mi ngi woote waxtaan assise bu amee mi ngi woote waxtaan donc suñu kenn ku nekk su ñëwee la nga xam ne mooy sa mbir defe naa war nga ko fa teg ñu waxtaane ko te kilifa toujours li ngay waxtaane ak moom mën ngeen koy waxtaane ci biir néeg ngeen bokk tënk ci biir néeg waaye kilifa kenn du ko yóbbante ay wax kilifa soo amee loo xam ne yitteel na la te mu ñor la dangay ngay jóg toog ak moom waxtaane ak ko ak moom parce que amul kenn koo xam ne li ngay def lépp mën na nekk mu mat à cent pour cent loolu yàlla defalu ko kenn ci ñi ma ko war a wax waaye nag jàpp naa ne président Aliou Sarr moom nit la koo xam ne bañul waxtaan bañul waxtaan mag la waaye mag mu mag mu yaru la mag la moo xam ne képp koo xam ne kii jikko boobu nekk na ci yow boobu ma wax ci moom bu ngeen toogee waxtaan di ngeen trouver solution moo tax toujours rek lépp nañ koy tënk ci waxtaan booloo diisoo bu ko defee fi ñoo xam ne fa la ñu bëgg a yóbbu làmb yépp incha allah dinañ ko fa yóbbu. sama nijaay euh, sëñ Modou làmb fi mu toll te ñu gis am na nañu arène national mais ginnaaw bi ñu ko amee dafa mel ni euh, am na foo xam ne ñu ngi fay tëgg làmb waaye dafa mel ni am na foo xam ne saafara su jur jàngoro la promoteurs yi dañuy ñëw ci seeraay bi ay jamono doon nga leen waxal sax ngir ñu mm-hmm. wàññi ko. bokk mm-hmm. nga ci ñi ma njëkk a dalal jotaayu mm-hmm. làmb. nga ñëw ci. waaye ginnaaw loolu gis nañu bari ñi làmb ji décentralisé wu na yéen fay dem. bari ñi nag boo fay ñëw di nga nangu ni stade bi xaw na sori. Mhm. di nga nangu ni infrastructure ba am na yu ci manqué. ci mhm. biir mhm. ndax stade la boo xam ni ñu ciy woowaat kilifa yi. ngir ñu jëf ci liñ ci war a jëf buñ ko ci jëfee dinañ mën di fa dem saa su ne euh, làmb di ci dund gox ba di fa dund lu waral ngeen di dem bari ñi bari ñi dafa gën a yomb charge wala arène nationale bi euh, lan mooy différence bi. waaw euh, déjà arène nationale bi rek doyul pour làmb. parce que li war li nekk ci ay licenciés ci ci ci réew mi li nekk ci ay xale ci écrit yi ak ci ak ci ak ci école de lutte chaque dimanche ñu tëgg arène nationale ak chaque samedi loolu sax doyul pour làmb boo gisee ñuy def loolu di jël barñi wala feneen wala feneen pour que ñu mën a multiplier action yi pour que ñu mën a fexe ba suñu ubbee saison bi le maximum de jeunes lutteurs ñu mën leen a bëreloo c'est vrai que tey arène bi baax na waaye la ma doon wax toujours du ma jóg ci di ko wax ñoom promoteurs yi fay tëgg surtout les jeunes la ñoom ñëpp gis nañ ne metti na ci ñoom metti na ci ñoom parce que euh, la ñu fay fay xaw na metti ba nga xam ne tey boo tëggee bari fi mu nekk nii dépense yi ngay def day tolloo ak dépense u Iba Mar boo tëggee bari ñi waaw dépense yi day tolloog dépense yu Iba Mar mais bu dee arène bi bu dee combat bu ndaw foog nga teg ci cinq cent mille ci dépense yooyu wala cinq cent et quelque dina ëpp sax cinq cent mille mm-hmm. donc loolu moo waral xale yi ñuy fexe di dem ay barñi bu ñu mënee am feneen tamit dinañ fa dem suñu mënee dem ba ñu defal ñu aussi arène municipale mm-hmm. ba tey aussi parce que bi président Wade di joxe terrain bi pour ñu def ko arène nationale te mu recevoir ñu palais booba amoon nañu projet aussi arène municipale fi jàkkaarloo ak building communal loolu Pape Diop moo ko waroon a defar donc loolu aussi su mënee am ba tey day gën a baax parce que làmb du ñu ne rek defal la ñu rek léegi baax na il faut ñu am arène municipale boo xam ne day tolloo ak yenn combat yi nga xam ne tey bu ñuy dem arène nationale day lu lu waroon a dem Demba Diop moom lañ fay yóbbu. Mhm. loolu sama xalaat la rek. te aussi xalaat bi am na solo. voilà euh, doguma la ci. mais it su ma la déggee boo ma dellu see seelee ni bari ñi dafay yem ak ay charge dingeen di ngeen di tëgg foofu kon arène bi bi mu ñëwee. ndax du ko doon xaar bu dee am na jéego yu mu fay def ma tegu ko. waaw parce que arène bi bu dee combat yu ndaw yi te loolu moo ëpp ci làmb. Mhm. combat yu ndaw yi moo ëpp ci làmb. Mhm. ndax tey écrit boo dem fekk fa benn ténor bu war a bëre war a feesal arène nationale lu mat téeméer mi ngi ci ginnaawam yoo xam ne ñoom bu ñuy bëre dañoo war a bëre fu mel ne Ibamar wala fu mel ne bar ñi mm-hmm. te loolu mooy doxal làmb loolu mooy tax aussi relève bi mën a assuré wu mm-hmm. ndax ñi ci kaw fi mu nekk nii ñu ci bari léegi ñu dem retraite mm-hmm. donc war nañ am yeneen xale yoo xam ne dañuy fël te loolu boo seetloo da ngay gis ne combat yu bari bu ñu ko tëggee ci arène bi da ngay gis ne lii tuuti na ci arène bi. loolu da nga koy gis. donc jàngatu làmb bu am solo la. Mm. kon mbokk yi ci la ñuy àndee topp li nga xam ni mooy VAR. VAR nag bu ngeen ko déggee mooy xët mi nga xam ni moo ne ci seen biir émission làmb ji VAR ñu ciy def taxaw seetlu ku bokk ci làmb am ci cër am ci jéego liggéeyal làmb saa su ne dañuy tënk lenn ci jàngatam bu ko defee ñu dellu si ci dugal ko ci biir VAR. VAR bu njëkk bi dañ ciy rendre hommage sunu yaay Khady Diouf Yerwago moom it di ndaanaanu làmb bokk ci làmb liggéey ci lu bëri. tax na ba turu yarwaago am na fu mu yegg tax na ba cosaanu séeréer feeñ na bu baax a baax tax na ba it ñu bari ñëw làmb fekk fa taarix ak cosaan victoire ngi noonu muy xët mi nu jagleel émission làmb ji ponk bu njëkk bi euh, ba tey kon li ñuy def lu dul ànd dem ci biir tàkkusaanu mu ñaa production xool moom it liggéeyam euh, ci biir stade yi xale yi nin ciy bëre nin leen di waajale seen i mbokk ni nuy ñëwee ak mbooloo yi nga xam ni ñoo leen di gunge bu lébu gi moo yor ngemb lu weex booy joolaa yor ngemb lu xonk arbitre sifflé na nañ daje booy joolaa jël na ko booy joolaa jël na ko booy joolaa da ah jël na picos yanu arbitre nee na njaax am na arbitre nee nañ bëriwaat arbitre nee nañ bëriwaat arbitre yi danoo gisee seen biir picos dóor na picos ak booy joolaa daw na nu daje Boy Joola jël na ko Boy Joola jël na ko Boy Joola delloo na ko fa tuur na ko du jos rëpp na jógaat na nu Youssouf ak Boy Joola ña nga jàppante Joola daf ko bëgg a yëkkati jos bañ na Boy Joola daf ko bëgg a yëkkati jos bañ jos ak Boy Joola ah Boy Joola moo doon caxabal far mu sori. Diouf toog na ci kawam tëgg dënn ba Petit Niang door na ko mu tërëf Petit Niang na général daw na jël ko Petit Niang rasu tuur ko Petit Niang ak bu daaru Petit Niang moon woon fi nu toll Petit Niang ak général bu daaru Petit Niang ak général bu daaru Petit Niang sili Petit Niang ak bu daaru général bu daaru caxabal na caxabal na moo oh, caxabal moo daanu daan na Tidiane baa ngi wax ak Diop arbitre sifflé na général tam moo ko kàbbaar ñetti yoon xambaat général tam ñu ngi toon xambaat général tam xambaat moo sànni léegi xambaat général tam jàppante baaraam Waan door na léegi général Taba ngi ne tekki di ko déglu rek jàppoon na baaraam Xaban yootu na cong ma Xaban ak général Taba général Taba door na Xaban xar na ko Xaban xar na ko xar na ko waroon nga koo mën a daan xar ba dangay mel ni ku ci dënd ba ànd ak moom fa nga def sa bopp moo baaxul daan na ko Xaban daan na ko Xaban daan na général Taba. Dieng jàppante baram Youssouf Bébé Dieng Youssouf Bébé Dieng am na ko door daje nañu ñaari mbëri songo nañu Youssouf Bébé Dieng kor na kor na ko tànk ba lay jeex ca suuf Bédière am mbëkk bokkul mbëkk bokkul avec na. dañ koy disqualifié bu ko toppee règlement dañ koy disqualifié Pape. combat ba jeex na foo mbëkk ci règlement. gi assuré wul xeex man ko indil la. xeex man ko indil la. nga takk nañ ko daw si. takk na ko takk na war nañ ko ndomba. dañ kaa war ndomba mu dëpp. fi mu toll ñu xool lu si am. ndaraan mu ngi hyperkil mu ngi koy hyperkil koy buret mu génn ñaari xay oh arbitre sifflé na arbitre sifflé na ñu xam lan la di joxe camion baba jeex na ndaraan gi daan na tey mu neex. waaw. Bébé Tapha Tine Thiatou Limousine Thiatou Limousine daw na fekki ko Bébé Tapha Tine doon gauche droite Bébé Tapha Tine Thiatou Limousine Thiatou Limousine daw na fekkiwaat ko Bébé Tapha Tine jàpp na ngemb Thiatou Limousine ña nga jàppante Bébé Tapha Tine moon woon ginaaw Thiatou lan jàkk ñaari mbëri ña nga jàppante mooy door mais Tapha Tine mooy door mais Tapha Tine mooy door Thiatou Limousine aj na loxo ba mais Tapha Tine door na Thiatou Limousine jaxabal na ko daan na ko Thiatou Limousine daan na ko jël bu rëy sàqi na ma ngay dem ay mbokkam toppi nañ ko waaw bébé Tapha Tine fu mu jëm <laughs> bébé Tapha Tine fu mu daw jëm bébé Tapha Tine fu mu daw jëm tëb na miir ba jéggi na ay mbokkam fekki nañu ko sàkki na. lamb jooy na weel ndaanaan ba dem na amateur yi jooy ndaanaan ba dem na musicien yi jooy ndaanaan ba dem na télévision yi jooy ndaanaan ba dem na waaw lamb jooy na weel juddu yaayi yaa ngi bari ñi di fi def liggéey bu solo boobaak léegi tey nga dellusi fi waaw tey ñu dellu si fi def fi journée des espoirs comme ñu ko daan defee rek ñoo ngi ñaan yàlla moom mi nga xam ne moom rek moo mën mu musal ñu ci saytaane ak musiba ak balaa li dugg ci réew mi yàlla na ko seppi na dëkk génneel ñu ko ba mu set wecc tey ñu ngi doon tëgg journée mais incha allah li ñu fas yéene mooy tënku ci ndigal li nga xam ne moom la kilifa réew mi joxe. sama nijaay diggante ñi nga xam ne ñooy arbitre yi ak CNG coow li bari na dem nañ ba ay daan juddu na ci nga bokk ci làmb am ci cër sa kàddu ñu ko ciy soxla ndax sa dal ak saa su ne ni ngay dollee nit ñi diggante boobu loo ciy wax. waaw diggante boobu li ma ciy wax mooy làmb benn famille la famille boobu toujours rek nañuy fexe nu mu gën a suudewoo tey ñun li ñuy ñaan mooy yàlla dimbali ba arbitre yi ak ñëpp àndandoo ñëpp tënku ci ginnaaw président Alioune Sarr. jërëjëf jërëjëf diggante arbitre ak loo ci wax bon diggante arbitre ak CNG defe naa ne mbokkoo gu yàgg la nañ ko rafetal ndax euh, ko àndal 22 ans 23 ans yaakaar naa xam ngeen xamante ngeen li ñu waroon njëkk a mooy defe naa dialogue waaw moom nag la ñu war a indiwaat nag wax dëgg yàlla parce que tamit jaru dara jaru ñaawoo làmb la fo la ñun ñëpp ay mbokk lañ waaw ndax ñaari ñaari anti yëpp tey ku ci xawle malheur sa sa morom moo ñëw taxaw donc nañ ko rafetal daal loolu laa bëggoon wax. jërëjëf ok jërëjëf. CNG ak arbitre yi. li ma ci waxoon barki démb ci benn euh, site internet laa ci waxaat rek comme ñun njaboot lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañu toog waxtaan bokk ndey bokk baay xam ne liggéey bi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk. CNG bi actuellement li wax toujours rek mooy fi ñu toll ci làmb tey làmb soxlawul ay radiation ay dàq ay nit. làmb soxlawul loolu làmb li mu soxla mooy ñu toog waxtaan xool lan moo war a tax tey jii mbër yu mag yi bëriwuñ lan moo tax sponsor yi dem loolu dëgg-dëgg tey Pape Aline moom mooy li làmb soxla tey stade Bargny journée mu ñaaw production combat spécial baa ngi noonu ñu ngi Leewtoo Hamza Dóor na Numaar biologue moom Hamza ras Numaar takk na ko Numaar takk na ko takk na ko tuur na ko Numaar Hamza daan daan na ko mi Hamza daan Hamza Ndoumaar moom waxoon naa la avant la mbër la ndaanaan la li ma jaaxal Ndoumaar moom takk bi li mu indi finalement lan la yaa jógee Kër Massar bëre am ndam waaw sant rek ndax ndam bi dama ko mérito billaay wallaay xale bu ndaw laa war na mën am lu nekk si làmb billaay wallaay combat bi dafa gaaw et puis daf la teg nga daan ko dama liggéey lu méri billaay wallaay ñoom boosee ñoo ma ko teg ak vieille dacia ak sa bokal ak ba sa gees ak sama kos king ak baara di ngeen bëre sin pare na dix mille problème pare na arbitre sifflé na Leewtoo ba door na Bour Sine dix mille problème dafa daw fekki ko dix mille door na ko jël na ko tagg na ko caxabal ba yegg siwul ah dix mille jël na ko yegg na ko fu sori Bour jël na ko yegg na ko fu sori génn nañu géew ba arbitre atte na ñaari mbëri waat leen ci géew bi arbitre sifflé na dix mille problème Bour Sine ñu ngi leew tóor Bour Sine na dix mille problème dóor na songoon nañu Bour numéro de dix mille problème journée Mouña production Bour Sine numéro 2 jóge jëf soog a nekk problème jóge Ramdan ña nga jàppante ñaari bëri songoon nañu dix mille lu bëgg a def lan la daanu na dix mille da ngaa fooye soo bëre doon bëgg a def waaye nag limil da ngaa kon mi ngi noonu ginnaaw liggéey mu production ñu dellu si waat ak jotaayu waxtaan euh, sëñ Modou saison bi bu nu xoolee fi mu toll dafay saison boo xam ni booy jàng ku mel ni Mouña production yaa ngi ma koy wax tëgg na neuf journée daanaka dem na ci li mu amoon daaw. Mhm. mais am na promoteur yoo xam ne bi ñu daggee licence ak tey benn journée la ñu am. am na promoteur yoo xam ni tëggaguñu journée ñooñu it CNG nan la war a mën a def bàyyi leen xel. ñu fexe ba ñu gis seen bopp par rapport ak licence yi ñu dagg. Euh, loolu day dellu siwaat ci li ma la wax léegi. Mm-hmm. li ma la wax ne la arène nationale rek doyul pour écuries yi nekk ci réew mi. Mm-hmm. il faut ñu am beneen infrastructure boo xam ne ñii dañuy tëgg fii arène nationale tey ñee tëgg fële. Mm-hmm. ñii tëgg fii ñee tëgg fële. loolu fekk amul nit dina dagg licence ba pare benn journée lay tëgg wala ñaar wala sax. Euh, benn journée rek ci lay yem. ci lay yem loolu aussi lu ñu war a seetaan la. Mhm. bon c'est vrai que nag saison bi ni mu demee ku nekk gis na ko. Mhm. xale yi ñu ci bëri ñi nga waroon def seen deuxième journée. Mhm. ñi ngi waroon a ñii ñi nga waroon a démarrer yàlla indi li mu indi. donc loolu tamit dañ koy nangu. mais li ma xam daal mooy arène nationale bu amee war nañu am war nañu ubbil yeneen state yoo xam ne fu mel ne tey stade u Mbaaw pourquoi pa statu u Bargny. stade Alassane Djigo wax naa ko ba sonn. Mhm. yooyu yëpp day tax làmb gën a dund day tax làmb gën a avancé tëngeej tëngeej ñoom waroon naa fa tëngeej tëngeej joxoon joxoon nañu ko mhm. affaire bii la mais ñun la 14 juin waroon nañu tëgg benn journée tëngeej mhm. am na yeneen journée yu fa waroon am donc làmb daal il faut mu tasaaroo ñu tasaare ko mooy tax mu mën a dem parce que li ci yaakaar dafa bëri li ciy dund dafa bëri te aussi xale yi tamit ni ñu feese ci écrit yi man sax léegi léeg daf may yéem. Mhm. léeg-léeg daf lay yéem. mais it saison bi da doon tëj 31 août yenn saa yi ñu yokk ko. ren boo xoolee ak li fi jaar muy coronavirus ba tax na ñu dakkal bépp ndaje bu fekkee dinañ ko reprendre dina yéex a tàmbali kon par rapport ak ñi am benn journée ak ñi tëggagul foofu it nan lañ leen war a mën a jàppale. waaw ñooñu aussi ñu ñu leen war a mën a jàppale booy seet sax da nga naan peut-être sax du doon promoteur yi peut-être. mbër yu ndaw yi mbër yi nga xam ne ñu ngi ci écurie yi nga xam ne ñu ci bëri làmb lañu gën a yaakaar man sax toujours ma di leen digal ne leen làmb ji de leen ko boole ak métier mhm. kenn ku nekk métier ma sa bàyyi yoroon di ko liggéey danga nga koo war a téye di ko liggéey boole ak ci làmb ji mhm. parce que day tax tey métier moom sax day gaaw a développé parce que boo jëlee ci làmb ji renforcer fa rek day day day day développé loolu toujours maa ngi leen koy conseillé donc xale yooyu ak seen famille aide yi nga xam ne génne nañ ko ñu ne dafa jëm ci ñi nga xam ne dañu xaw a néew doole nañu fexe ba ñoom it ñu boole leen ci nañ ci boole seen famille yooyu loolu man appel boobu laay lancé ne promoteur yi sax moom xam nga ñaare ñaare Pape Alioune kuy ñëw bay tëgg làmb moom di na fekk nga am aslëf nga fi may waxee CNG jàppale leen waaw boobu lan la war a CNG war a mën a teg déggoo ceeg ñoom ba tey jii ñi daggoon licence am ñoo xam ni tëgg nañu am na ñoo xam ni benn journée lañ tëgg am na ñoo xam tëggaguñu dara kooku it xañ na ñun ak suñu liggéey promoteurs yi yenn saa yi day nekk loo xam ni seen i jafe-jafe la dañ koy ñaxtu da leen di xaw a jaaxal tey jii mu doon loo xam ni bëgg naa ñu waxtaanee ko bu ko defee làmb bàyyi ci xel ñu xool nu ñuy def ba dara du gàkk ci kanam waaw fi mu nekk nii nañ ñaan yàlla lii daal di gaaw jeex mhm. su gaawee jeex bu ñu yàlla dimbale pourquoi pas sax bis bu ñu reprendre ñu ne saison bi du tëj day continuer taxaloog bële. day waaw loolu war naa mën a ne bële xanaa nawet bi rek lañ ciy xaw a ragal mhm. mais normalement bu ñu ñaanee yàlla lii mu gaaw a jeex ñëpp ñu ngi ci ñaan nag kilifa diine yi ñu ngi ci ñaan ñëpp nag a ngi ciy ñaan mhm. ndaxte nag ñaan moom na ñëpp ñaan rek mhm. waaw ki nga yaa ki nga gis sax mu ne ci mbedd mi sol sagar toog na ñaan rek ñëpp ñaan moom yàlla moom moom euh, na ñëpp ñaan rek léegi ñoom su fekkee loolu am na war nañ leen mën a dimbali ci loolu bis bu ñu reprendre ñu ne ah comme reprendre nañu nañu fexe ba ñu étaler ko mu taqaloo ak saison bële bu ko defee ñoom ñëpp li ñu mëbatoon ak ñi nga xam ne dañoo jël avance man mii am na mbër yu bari jox naa leen avance mhm. mais loolu il faut que ñu muñ tuuti bu démarrer rek ñu accélérer ñaan daal yàlla lii daal daal di gaaw jeex rek mhm. moom mooy solution bi yàlla ko yàlla def ah. mbokk yi kon ginnaaw waxtaanu làmb ji dañuy delluwaat ci vaara muy gan gi kon vaar ñaareelu ponk bi dañuy jël nag waxtaan woo xam ni waa Lutte TV ñu leen di nuyu sunu frère Babacar naka noonu Ndey Kumba euh, Fall ak euh, Soxna Aïcha ñoom ñëpp ñu leen di bàyyi xel euh, waxtaanu làmb la boo xam ni borom Walfadjri muy Alaaji Sidy Lamine Niass keroog bi nga xamante ni dëddu na dafa am seede yu ñu doon jël ci moom soxla woon taxawaayam ak jikkoom ak melokaanam ci liggéeykatam ñu fekkoon ma usine ñaari tali mu am lu nu waxtaanee woon ci ni mu doon liggéeyloo nit ak ni ngeen doon jëflantee ci collaboration kon VAR danuy xool témoignage yooyu ci Sidy Lamine Niass bu ko defee ñu dellusiwaat ci yàlla na ko yàlla dolli yërmande moom it sama papa yàlla na ko yàlla yërëm bi ma joxee émission làmb ji émission bi ma njëkk a présenté mu seetaan ko daf ma ni am na solo mais li ma ci jàng ñu ngi ciy dalal ñëpp daanaka dañu la féete mag ci lu bari dee leen cëralee sama ndijaay lu mu ci rafetalul du ko yàq muy kàddu boo xam sax dama ko ci xaw a tàmm ndax baat boobu kon loolu it barke Sid Lamine daf ciy feeñ mais li ma jàng ci moom diiru mu jox ma émission làmb ji ak tey keroog dama ko wax alaaji Saliou Bey ndax Zal mooy sama imam mais man daf may tooñ naan ma imaam ma ne ko imaam làmb ji day sas la ci man ndax li tax sas la ci man Sidi bi ma ko dénkee ak tey mosuma def émission mu censuré ko mosuma def émission mu laaj ma ci explication kon loolu kilifa gu doylu moo koy mel ndax loolu man gëm naa ni du sama mat man doyloom la moom ndax am na ñoo xam ne nag buñ la dénkee dara boo ci jàllalee mbir dinañ xëy na ah li nga ci jàllale lan la li nga ci jàllale foo ko teg dangay gis promoteur day ñëw bëgg a négocier ak yow boo ko woowee dala naan waaw responsabiliser nañ la rek sa domaine la yaa ngi ci commercial bi xam nga li jaadu traité la jiim ngeen def lu baax ci liggéey bi kon loolu day am solo ñu seede ko ci moom mu nekkoon tam nit ku fonk lii réew mi am muy gàmmu gàmmu mooy sant kalante sunu biir bu ñu mësaan daje ndeysaan li ngay njëkk a gis ci moom reeju neex te lay siñ ah mbayeen bi ci loo ne tooñ la ngeen tooñante ci kal ak gàmmu li may mën a wax daal réew mi ñàkk nañ koo xam ni gëm naa ne duñ ko amaat te xamuñu ko woon tey bi mu fi jógee ci lañ koy xam mu jàngale lu bari nag bàyyi fi may ñaan ci yàlla daal li mu def ci réew mi ak li mu def ci ndaw ñi barke ak yooyu teraanga yàlla ko gunge ba këram gu mujj Ah, loolu moom dèjà wax ji dama naan sax tënku na ndax li nga wax mënee su ko passé waaye comme ni wax si relation bi ci làmb ji mësul sensibiliser sa émission ak yu mel ni ki noonu kon loolu li muy wund mooy moom kilifa lu nga xam ne su la dénkee daal ci sama déggin dafa lay bàyyi yow. loolu day loo xam ni man day am na lu ma ci jàng ci moom mais lu tax ma koy wax damay bëgg kilifa yi roy ko ci ñoom ci roy ko ci moom ndax jël nit dénk ko làmb ji gàtt gàtt ñu ngi ci sunu cinquième sixième saison. dama la wax ne la mësuma dem tournage moo xam extérieur la moo xam lu nu liggéey la mu ne Pape Alioune lii lan la wala lu tax ngeen def lii ba loolu da doon nekk soññ ci man muy loo xam ni daf ma marqué du ma du ma jóg ci di ko wax dinaa la keroog laa mujj di ci waxtaan ak Saliou boobu xaw ma woon ni li am tey dina am. Mhm. loolu moom kon ñu ngi ñaan ñëpp roy moom ndax loolu ci jikko bu baax la tey soo amoon lu mujj looy wax sénégalais yi. di ko ñaanalaat ki nga xam ne mooy aji dem ji ak ay njabootam ak ñëppam lan lay doon. yàlla yërëm ko woyofal suuf yi kawam aji dem gi mu yàlla ci Sidy nag doon na wax sama njaboot muy njaboot gi mu jur ak ñun ñi mu jaboote te ñun ñi mu jaboote feeñ na tey ndax sànq bi ma toogee wal fajiri liggéeykat yoo xam ni ñu bari jaar fa nga gëjoon leen si ñoom ñëpp dañu ñëw bokkandoo ndekk fa kon loolu mooy wane ni ñun ñooy njabootam gën a booloo gën a am gëm-gëm gën a xool li nga xamante ni moom la gëmoon nekk ci parce que Babacar dinaa la wax dara nee naa la at yi ma def wal fajiri boo ko dindee ci presse dama la daan dara desu ci ndax man wal fajiri laa mës jaar mais ci biir at yooyu su ma sóoboo ci dara mu metti wala mu jafe wala muy loo xam ni dama ciy jàngaat àdduna wala sama bopp dama naan non lii waruma ci sedde wala waruma ci reculer damay jël exemple ci Sidy Lamine Niass combat dama koy mëne dama ciy dem ba jeex nit ku am gëm-gëm la woon kooku ndaw ñi nañ ci roy mais aussi bien njabootam ginnaaw bi ma leen massawoo olof yi nag dañuy faral di wax ni donn sa baay donn sa baay ko gën bàyyil na leen loo xam ni du réer bàyyil na leen loo xam ni du fay ba abadan kon ku ne na nga xam li nga xam ni jëfal na la ko ak lim la bàyyeel ndax olof yi dañuy faral di wax ni ku noppee wax ci sa baay mbaa nga jëf-jëfam yaa réeral turam. Mhm. jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar jërë ngeen jëf kon mi ngi noonu jàngat bu am solo la dañuy ñëwaat ci waxtaanu làmb euh, sama nijaay làmb ak fi mu toll Mounia production ak liggéey bi bi ngay fêté euh, anniversaire u vingt ans yi suma juumul maa ngi la naan ci biir liggéey muñaa production lu la ci gën a neex ak lu la ci metti wax boobu dama ci jàngaat àdduna ba lépp lu may jëflanteeg doomu aadama dama ci dellu si nga wax ma ni ma li ci neex bokk naa ko ak ñëpp li ci metti baal naa ko ak ñëpp waaw muy message boo xam ni maa ngi ciy soññ sama bopp ma nit di ci soññ ñëpp ndax dañu koy soxla bu ñu toogeeg suñuy ndijaay bu ñu toogeeg ñu ñuy féete mag ñu jël ci ñoom loo xam ni lu rafet la dañ koy soxla bu baax a baax waaye ginnaaw loolu làmb ak Mouniang Production saa baay daf ma doon wax àdduna garab sax day sëq ba mu yàgg mu ruus yan moment la moo Modou gis boppam ci làmb yoo xam ni par rapport ak li muy tëgg ak mbërim ci boole ak làmb wuy si na ko ak bu fekkee am na moment yoo xam ni loolu am na tuuti rupture yan jamono la. ah loolu kay ñëpp xam nañ ko mooy jamono yi. mooy jamono yi. waaw yow xam nga ne wóor na la ne. Mhm. Euh, jamono yi nga xam ne ci la fi président Abdoulaye Wade nekk. Mhm. ñoom Pape Diop nekk fi ñoom Souleymane jamono yooyu chaque saison dinaa tëgg au moins lu man ñeenti journée Demba Diop. Mhm. Yékini Baboy ku leen boole man. Mhm. Yékini Lac de Guiers. Ama Baldé Nees ah. Papa Zos ah. Euh, tonnerre ouverture saison boobu musul am. Mhm. ouverture saison bu mel ne Tonnerre Papa Sow. Mhm. nga xam ne signature contrat bi rek boobu lamb la woon. Ibomar dafa fees del ñu dem Demba Diop mu fees ba toj. keroog ci guddi gi Souleymane daf ma Souleymane boobu mooy premier ministre daf ma woo ne ma di ma félicité mm-hmm. donc loolu jamono boobu tamit ah suñu frère yeneen yi nekkoon ci làmb ji tamit mm-hmm. booba tamit ñoom it booba la gën a sëq ci ñoom ci sëq ci ñoom muy ñoom Gaston ñoom Luc ñoom ñëpp Petit Mbaye jamono boobu am na sponsor yu mag yu fi nekkoon doon investir lu bari bon xam na sax la mu doon investir lu bari man jotuma woon ci loolu lu bari loolu. Mhm. mais fexe woon naa ba bokk ci course bi. bokk ci waaw ba nga xam ne chaque saison. Mhm. doon naa tëgg lu mat vingt huit journée vingt cinq journée. Mhm. là où ñoom ñu ngi doon sponsoring foofu it bokk ci course bi mooy lan. Euh, bokk ci course doon joxe tey jii Mouniang production lim ci doon am bu koy xaymaal par rapport ak li muy soxla ci saison. ah yow xam nga léegi yaa ngi dégg. yaa ngi dégg ku mel ne Gaston mu ne la sama mag maa ngi koy nuyu au passage. mu ne la moom daan na jot un milliard deux cent millions ci saison wax na ko waaw. période boobu man li ma doon jot passé wul deux cent millions. li nga doon jot passé wul deux cent millions waaw xoolal li ma ci doon def lépp. Hmm. ay vingt huit journées. Hmm. ay quatre journées Demba Diop. Hmm. loolu yëpp doon naa ko ci def. ci biir deux cent millions waaw lépp organisation la. ok te terewul. doon naa ko ci def mais awma ci benn jafe-jafe. parce que doon naa tëgg ay Demba Diop di tëgg fu nekk. banlieue Ziguinchor Guinguinéo. Linguère. mais fi ñu toll lu waral loolu amatul ginnaaw sponsor yi nga tudd lu waral it mu ñaaw production defatul lu ni mel. waaw li tax defatuma lu ni mel mooy sponsor yooyu amoon noonu moom amatul. ginnaaw sponsor yi. ginnaaw bu sponsor yi jàllee. Mhm. bu yi jàllee fi mu nekk nii lamb sans sponsor loo def événement. Mhm. sponsor yi nga xam ne moom laa fi dese. ñu ànd ak man di ma accompagner nga xam ne ñii samay mbokk la ñii dama yàgg ak ñoom mm-hmm. depuis vingt ans ñu téye ngor googu téye kóllëre gi mm-hmm. ñooñu ñoo tax sax ma mën a def lii may def te gis nga ne ba léegi ñun ñooy baat record bi mm-hmm. xañ na tëggatu yu ay làmb yu rëy yi ñu doon def démb jóp nga xam ne da doon nekk nag ay drapeau haute personalité de l'État comme loolu amatul nag ñun dañu def maintien seet li nga xam ne mën nañ ko te bu ñu ci defee bu ñu ko defee duñu ci loru te duñu ci lor kenn mm-hmm. te kenn duñu ci topp ci dara loolu moom la ñuy def actuellement ni moo tax saison bi ñu prévoir oon def lu mat vingt journée mm-hmm. ba jote def neuf yàlla indi li mu indi kon nag loolu moo waral euh, la ñu doon def mu wàññeeku waaye sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla ah ñi ngi fi ba léegi daal mm-hmm. di ko di ko def waaw loyauté fidélité bokk na ci lu ko may muñaa Production parce que it am na ñu fi woon am na tey jii leneen lu fi yàlla indi gis nañ ñu bari dem nañu fa muy dem yoo xam ne sax danga koy natt nangu ni seen mbiru bopp ci bopp mais Mounia wax dëgg yàlla fi ko xamee woon ak gëm-gëm googu resté na fa kooku doo fa dëgg yàlla doomu aadama it bu la ko yàlla defalee lu ni mel dina baax nga sante ko yàlla loolu tey lu ko may Mounia Production. loolu li ma ko may wax naa leen ne man sama position. Mhm. ci président Abdoulaye Wade. ak ci suma frère Karim Wade position bu bu net la bu claire bu précise mhm. sans équivoque ni ambiguïté ñoom laa àndal tey ñoom laa àndal démb ñoom laay àndal ëllëg bi mhm. soobee yàlla mhm. lépp lu ñu ne maa nga ca lu ñu am lu ñu am ma am ko doy na ma lu ñu amul muñ naa ko fas naa yéene daal kóllëre googu daal ma téye ko ànd koog ñoom ba yomal xiyaam jàngat bu am solo la ci laa bëggoon kon mu doon ponk bu mujj bi laataa ñuy tàggatoo may bàyyi xel sunu papa booy Bambara moom it ma koy rendre hommage di fëgg kon yàlla yàlla fëgg boppam booy Bambara ñu ngi koy rendre hommage yal yàlla saafara ko di wax nit ñi nañ ko gën a bàyyi xel dafa bokk ci làmb am ci cër làmb nag yenn saa yi dañuy baaxoo wax dëgg yàlla ku ñuy gis ba gisatuñ la ci sunu biir dañ lay fàtte waaye booy bàmbara nekk na équipe nationale yor na équipe nationale bari na xale yoo xam ni jàngal na leen bëre am na xew-xew bu nuy dégg ñu tudd ko ci mag a këram fa tubaar fa kàlla njabootam ne ci moom ñuy wax nit ñi rek nii internet liñ ci war a jàng dañ ci doon wut information yu net waaye internet dañu dem ba yenn yi mujj doon nattu ci réew mi ndax lu ko waral dafa doon mbedd ñëpp ciy wax ñëpp a ciy daje mbedd nag bu ci ñëpp di wax ku ne war nga xool la nga cay wax ak ña nga cay waxal ak fa koy waxe kon ginnaaw loolu mu ñaa production looy tàggatoo sama nijaay waaw li may tàggatoo mooy loolu nga wax noonu rek suñu nijaay suñu baay booy bambara ñu ñaanal ko yàlla fëgg boppam allahumma ba yàlla féexal ko bu baax a baax a baax allahumma amin suñu nijaay Sidi Lamine tamit mm-hmm. di suñu mbokkum daara di suñu mbokkum taalibe di suñu mm-hmm. mbokkum lépp mm-hmm. ñoom it ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ya gën a kawe te ñun ñu fi des yàlla saxal ñu ci tuub ak jaamu yàlla ak liggéey mm-hmm. ñoo ngi sant waa làmb yëpp jiital ci président Aliou di leen sant yéen ñii tamit. jërëjëf yow mii ñu ngi lay sant bu baax. ñu gis nañu émission yi ngay def. jërëjëf gis nañu yar beeg teggi ni jërëjëf gis nañu yoon wi nga ko teg. jërëjëf te lii ngay wax ni gis nañ ne mi ci yow. jërëjëf gis nañ ne daal li ngay def ànd nga ci fulla ak fayda ju mat sëkk. ba kenn du la wañ jëme fenn. jërëjëf Saliou Bey moom xam nga dama yàgg ak hmm. moom. Saliou Bey Alaaji Saliou Bey. Alaaji Bey ku baax la hmm. yéen seen ak seen ñi ngeen àndal ñëpp waaw vraiment daal kontaan nañ tey ci jóg bi ngeen jóg ñëw mm-hmm. suñu xol sedd na ci ñoo ngi ñaan yàlla defal ñëpp jàmm maa ngi sant ñëpp di mm-hmm. gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mouniang production jërëjëf ibu Guèye jërëjëf Alaaji Saliou Bey naka noonu jërëjëf Ndiasse Mbow mbokk yi kon muy équipe bi nu àndal ba mën leen indil seen émission làmb ji naka noonu sëriñ Aliou Kayta kenn ku mu ci loon ku ci ne ñu koy jox cëram ak wàccuwaayam di wax ni jàppal goo dégg dafa am ku ci tey sunu xarit sunu soppe yëpp ñu leen di bàyyi xel di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay tubaar fakkàlla saa su ne damay faral di ko wax réew mi ñu fi gën lañu yàlla booleel ngëneel dégg ci jikko ju rafet ngëneel dégg ci kóllëre as gor dayam àndu daaw ngëneel dégg ci teraanga góor ga waxoon na ko ñu ne ko luy teraanga mu ne teraanga mooy nga yor dara janaaru góor ku la yàlla booleel nga teral ko ci sa jëmm ba ku ko gis fonk ko lool kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp borom bi mën fu dara newal mu def fa ba mu bari lool nim ko misaali ci giif ba mu jur guy ku ci ne yàlla la yàlla defal lu ne mel ci say mbir mbokk yi kon concept bu bees la réalisation Alaaji Saliou Bey xët mu yees la ci biir émission làmb ji jërë ngeen jëf premier combatteur mbalkamaak moo ngemboo ngemb lu xonk ngemb lu jaune li ah, lam o ñu ngi lewtoo Mbalka jël na ko Lom mi ngi dóor attention attention kawo Lom Toro moo ñu wan gannaaw Mbalka mag moo ngemboo ngembulu jaune ña nga ca biti away ah, Mbalka dem Mbalka dem na daw na jafandu ci kaw sa ca geñoo ya ca gannaaw away ah, bëre bi dafa mel ne Mbalka mag euh, moom la gën a bëgg contact bi gis nga la muy away ah, la muy ca xabal bi oh, bu baaxul bàyyi ko daan na ko daan na ko jël bu rëy mbalka mag daan na ko jël bu rëy et gëj na bëre nag waaye lii e, mën na ubbi ay buntam bu baax a baax. Arlem yor ngembal li Papa Kante yor ngemb lu weex li journée Diamond Events dimanche ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2020 arène nationale xeex nanu da ngay xeex Arlem Papa Kante ku ne dóor nga ñu ngi lewtoo Arlem dóor na Papa Kane 2 baare Arlem dafa bëgg a dóor Papa Kane jiyoloo na ak moom dóor Arlem ak Papa Kane 2 baaraam jàppante na nu baaraam Arlem moo takk téere bopp ba ñaari mbëri jàppante na nu baaraam faqat na loxo ba Papa Kane 2 terewaat téere loxo Arlem mel na ni koy bëgg a sàcc ci suuf si giwaat dóor na gauche droite Arlem fayu Arlem dóor na Papa fayu ñaari xale yi xeex nanu jàppante baaraam songoo na lu ñoom ñaar at sol na ko ña nga jox lay wut ar lem xañ na ko ko ar lem Papa Kante ar lem Papa Kante ah, na ar lem a ngay tóor ar lem tóor Papa Kante bëtt na ko jaar ca wet ga takk na ko wër na ko bo yëkkati na ko daan na ko jël bu rëy Papa daan na jël bu Arlem day dóor mu bëtt ko ndombo yëkkati na ko daan na ko jël bu rëy Papa Kane 2 daan na Arlem. Euh, b droite Modou Lo Aynoumane pied gauche away ah fausse garde ak garde normale. Euh, ñaari mbër yi ñu ngi ci bu attention ah dama dama daan na ko daan na ko jël bu rëy b daan na ko jël bu rëy oh. mooy déplacé wu mooy sopp tànk yi noonu. bi si la war na combat ba Cheikh 2 ak Gaucher ñu ngi too Cheikh 2 moo yor ngemb lu xonk ak Gaucher Gaucher moo sànni Gaucher daw na dajeeg moom Cheikh 2 takk na ko Cheikh 2 takk na ko teq na ko laay laaw teq na ko laay laaw moo takk moo teq xamam lañ daal. jegem dem na dóor na jegem jegem dem na Jos jël na ko ah way daa dafa diis way way way Jos da bëgg génn waaye mënul ne daan na ko daan na ko ah attention daan ko daan na ko daan na ko doole doxul jàmm doole doxul jàmm waaw soldat amul garde soldat yi bàyyi garde bi garde bi normalul attention jël na ko soldat jël na tànk bi attention soldat yi bàyyi la ilaha illallah lan mooy am fi wër na ko ndomba doon na ko suuf la ilaha illallah waaw kii mooy ci Eumeu Sène Junior mépp na ñi ngi leew too ñi ngi leew too leew too bu diib Sène Junior jël na ko Bour Sine rafu na jël na ko Bour Sine na Eumeu Sène Junior door na Bour Sine sànni na gauche droite Bour Sine Eumeu Sène Monsieur le Signor door na Monsieur le Signor door na xeex nanu Dioufine door na Monsieur le Signor door na Monsieur le Signor gëdd na ko topp na ko Monsieur le Signor ngay door Monsieur le Signor ngay door maa kaw du am Monsieur le Signor jël na ko Bour Sine rasu na Monsieur le Signor jël na ko jël na ko jël na ko Monsieur jël na ko jël na ko Bour Sine bañ na Monsieur le Signor daan na Bour Sine Monsieur le Signor daan na Bour Sine Monsieur le Signor daan na Bour Sine topp ko may ko dara xeex ak moom weeru ma. gis nga combat baa ngi nii. waaw dafa maa caxabal doon ma jéem a weeru. ma sotti ko quoi parce que man lii sama foor la lii man dama koy bere. waaw laaj sax ban wér na nga tuur ko waaw dama koo tuur waaw dama koo tuur mooy waaw dama koo tuur xam nga ñun tamit père waaw instant bii dañuy jàng bere rek mën naa ne mokkalagunu waaw di gërëm di parafito di gërëm suñu kot su fàllu ngom mais di nga ñëw di nga ñëw ci gërëm bi waaw waaye xam nga bëre moom waaw dafa am loo xam ne toujours da ngay seet fi ngay juume waaw nga di ko jàng ba lëg si bi def waaw parce que journée Baba production ñi ngi Leewtoo Bas Diago mooy gemb lu xonk day mel ni ku waaj a waaw xeex na nu bàyyante. xeex da koo woote waaye dëgg ci moom. dëgguwul commando mënu woon ginnaaw. parce que am njool moom doo tëj doo xeex. Bas Diago commando. am na ngemb fi nu toll. waaw am na ngemb. kii nag moom war a war a bàyyi dóor yi te bëre. Bas Diago waaw. waaye bàyyi ngemb te bëre génn nañ géew génn nañ saako. ñëwaat nañu arbitre sifflé na. journée Baba Garage commando bas ku mooy dóor commando dóor na bas njaago rëpp na commando daan na ko waaw commando daan na ko commando daan na ko waaw commando daan na ko commando daan na bas njaago commando moo daan commando moo daan sam di jàpp combat bi lépp waaw di sant Vito ak ami Thiam waaw di sant Vito jàpp na ci combat bi may na ma deux millions jërëjëf Baye Birahim waaw ñaari mbëri taxaw noonu trompeur jàpp oh. foora. kenn ki mooy ko trompeur. waaw ki ci des mooy. jàpp foora trompeur numéro deux numéro deux waaw kay. bu tuddee boppam trompeur. waaw waaw mais caatu foora bi nga dégg naa mën na bëri. caatu foora arbitre sifflé na. caatu foora moo takk téere bopp bu weex ba. trompeur caatu foora. ah ah combat bi de combat bu neex la war a doon. ngembal wax li baay bi raay. combat bu neex la war a doon nag. trompeur moo xees. ñu ngi léew too. journée Baba Garage production samedi ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru février stade bu Bargny en direct ci Walf TV ndeysaan ndeysaan seen télévision neex a seetaan ci jamono nee naa leen at mu yeesu lépp ay yees ci programme yi digg Leewtoo trompeur Thiatou Fora ah mel na lu koy rocceeku. jël na ko da koy soof rasu na fàq na ko jël na tànk ba dëñ na. ko am na coow jeexul de. jeexul de jël na ko jël na ko. ah cootu coono. waaw yaay dalla ñaari xale yi bëre nañu bëre bu dee. waaw caal. mu rasu dellu ginnaaw. jërëjëf Thiatou Fora gaa ñu dégg nañ la. acca champion jërëjëf. waaw man gaa ñu dégg nañ la. li ci des li la yoon may mooy nga def rek jërëjëf. Thiatou Fora ngi noonu boo bëree. combat spécial bi moo war a ci géew bi bu ko defee trompeur moom it dina ñëw am lu mu sànni Double Tyson Ngoro fo waaw loolu mu def nag mooy lan. génn na géew ba lu ko waral. ah xëy na boo demee dafa jëkk loolu nag stage la doon doon nga génn ci nga génn ci biir téere bi def sa loxo. waaw da koy teel a jëm waaw. léegi nag léegi nag koo def ñu avertir la. waaw mais bu njëkk bu ñu la mërtee foo xam ne fii naka su noonu la. te doo ko fi daan te mën na laa andil juumte. da ngay allié ci saako yi daal di koy gindi def sa njàm wala nga joxe ko ca jumtukaay ñëw bële. loolu moo la xam-xam. sib la ne dajawaat noonu. soo ko doon bañ na ko. waaw nga door daan na Aliou Gueye. ñu delluwaat Baye Birahim arbitre sifflé waat na. booy Fissel ak Sa Thiès bu kër mbir ndaw arbitre sifflé na. Sa Thiès bu kër mbir ndaw kàmb na ko ñetti yoon. maa maa maa foo jël ñu des mbër bi jeex mukk. ñu ngi léew too. moom kër dañuy ñëw koo jël des fois rek. ñu ngi léew too. Sa Thiès bu kër mbir ndaw bépp na mel ni kuy dem taxawaat. booy Fissel moo dóor léegi. présenté Adja Mbène Ndour bi nga xam lu jeexal bëri bi bëri bu song rek koy jeexal mooy Fissel Sa bu Kër Mbir Ndaw mi ngi léew toog mooy Fissel Sa bu Kër Mbir Ndaw booy Fissel Sa Thiès bu kër mbir taw jël ah, waaw ah. ne mu ñaa production combat bu njëkk baa ngi noonu cité 205 ba yor ngemb lu verte li vita yor ngemb lu weex génn nañ géew ba xeex nañ ba génn géew ba ña ngay xeex ña ngay xeex tey di dimanche ñetti fan ci weeru mars atum 2019 vita moo jóge école de lutte Père Diaw moo yor ngemb lu weex cité 205 jóge yëmbal marin moo yor ngemb lu verte vita dóor Vita ak Cité 205 Cité 205 jël na tànk ba jàppante nañu Vita yi dóor noonu Vita yi dóor Vita yi dóor Cité dóor na ko fekki ko Vita génn na géew bi Vita génn na géew bi Cité daw na ca géew ba Cité 205 xale yi boo xoolee dese nañu xam règlement bi lu muy wax ñaari bër yaa ngi leew too moo sànni waaye dalul Cité 205 sànni na jàppante nañu Soutane 205 door na kurpañ bu dal Vita bëgg a tey ca téere loxo ba Vita moo la nu jàkkaar lool Soutane 205 woon ñu ginnaaw ndeysaan journée bu ñaa production lan leen topp sil mbokk yi ñaari mbëri ña nga jàppante Soutane 205 ak Vita Soutane 205 moo koor di dóor rocc na loxoom demee nanu wet jege waat nañu saako ya Siteu 205 ak Vita ña nga jàppante ña ngay xeex Vita jël na ko ko fu sori ah jël na ko waaye jëbi di la ko daane. par jege kay baax moon woon ginnaaw Milkzo jege Kër Masar mbooloo. Milkzo barbar journée bu Barbar journée bu Barbar journée na ko barbar jógaat na Bulkiso yeegoon nga ko fu sori waroon dem ànd ak moom action ba wéy Bulkiso kor na ko Bulkiso kor na ko barbar nga tuur waaye yeggul barbar takk na ko barbar takk na Bulkiso barbar takk na Bulkiso ma nga ne tekk di déglu a jàppante barbar takkaat na ko barbar te ah daan mbër daanu xañ na ca barbar yaa takk yaa jël yaa yëkkati bëgg a daan la ngay def yeggul Milkzo daan la Milkzo daan na barbar yaroo baax Cheikh Kayma ñi ngi dégloo yaroo baax Cheikh Kayma yaroo baax daw na fekki ko Cheikh Kayma di génn géew ba yaroo baax Cheikh Kayma songoo nanu ñaari mbari songoo Yoro Baax moo ñu woon ginnaaw kaymaa moo siggi noonu dóor Yoro Baax Cheikh Kayma Yoro Baax ëñ na ko Cheikh Kayma ñi ko jàppante Yoro Baax Cheikh Kayma jàppante Baax Cheikh Kayma ko jàppante ah day day dalla am na lu jëm suuf waaye boo xoolee Cheikh Kayma moo jiitu samp bopp ba bu ne ci ñoom ñaar am na looy ñaan catu xar yàlla pap sembeen catu xar pap sembeen moo sànni léegi catu xar yàlla pap sembeen ñaari mbër ngi leew too catu xar day dóor pap sembeen jiyaloo moom catu xar takk na ko pap sembeen mboot na ko atte na ñaari pap sembeen daan na ko ab sembeen daan na ko jël bu rëy ab sembeen bu dambay daan na caatu xaar yàlla bu Grand Yoff mbooloo Tony Junior bu écurie Falang Jandeer moom la bopp ba weex doomu jalaw dë bu kaay baax lay dajeel Tony ak jalaw dë Tony ak jalaw dë Jalaaw 2 mi ngi ne tekki rek di ko déglu Jalaaw 2 ndax du day mbaru mbapat ndax du dafa bëgg a jàpp Tony day déplacé wu mu ne tekki di ko déglu Tony ak Jalaaw 2 Tony Falak Jandeer Jalaaw 2 door na gauche droite ña ngay xeex cuppan yaa ngi mel ni mbàccum gerte Jalaaw 2 ak Tony Jalaaw 2 ak ñi ngi dégloo te ngi dégloo te ah, waaw waaw la bëgg a def lan la Tony fa mu yegg Dialaw 2 sori na Tony fa mu ko yegg sori na Tony fa ko yegg sori na Tony fa ko yegg sori na Tony fa mu ko yegg sori na Tony daan na Dialaw 2 dijj dëgër a ko gën a toog Caatu Yaraax journée mu ñaa production atuma sànni dimanche ñetti fan ci mars atum 2019 stade Iba Mar Diop Aatu Caatu Yaraax Caatu Yaraax ngeen tekki di ko déglu Aatu mel na ni ah ku jëm Caatu Yaraax dóor na Caatu Yaraax jël na tànk ba Aatu bañ na Caatu Yaraax takk na ko Caatu bay Aatu bañ na Aatu Caatu Yaraax Aatu Caatu Yaraax Aatu Caatu Yaraax Aatu dóor mu jógee askan bu Yaraax Aatu jógee école de lutte Papa Caatu Yaraax ku nekk ñoom ñaar jàpp na ngem njaga jàppante Fatou faqat na ko Caatu Yaraax yegsiwul waa toog Caatu Yaraax ña ngay rokka sante ca suuf waa toog Caatu Yaraax ñaari mbëri ña nga jàppante ña nga jàppante waa toog Caatu Yaraax ña jàppante Yarax jël na tànk ba jéem koo xaar Faatooy door Faatu Yarax takk na ko Yarax takk na ko Faatu Yarax takk na ko Faatu bañ na Faatu bañ na Faatu ak Caatu Yarax Caatu Yarax tegal na ko sees Faatu jéggi na ko Caatu Yarax jël na ko Caatu Yarax daan na Faatu jël bu rëy Caatu Yarax daan na Faatu jël bu rëy Ousmane Congu Diop Samba Yaar ñaari mbër yaa ngi leew too Alburi door na fekki njaaytin arbitre dafa sifflé Alboury fekki ko xeex ak moom daje nanu Alboury kor na Ndiaye Tine Alboury fàqat na Ndiaye Tine Ndiaye Tine bañ na Alboury Ndiaye Tine Alboury Ndiaye Tine Ndiaye Tine dugal na loxo ba bëgg a jàpp Alboury bañ na Alboury jóge kaay baax Ndiaye Tine jóge Bawol mbooloo ñu nga jàppante Ndiaye Tine benn loxo am na ngemb Alboury jàppagul ngemb ndaysaan ñaari mbër yi nanu tin rocc na loxo ba Ndiaye tin loxo ndijoor ba jàpp loxo càmmoñ ba jàppagul bu rek Ndiaye tin njaga jàppante njaga jàppante bu rek Ndiaye tin sif la waat na combat ba Alboury Ndiaye Tine ñi ngi leew too Alboury mépp na fekki ko Ndiaye Tine déplacé wu journée mu ñaax production dimanche dajeeg ñetti fan ci weeru mars Ndiaye jël na tànk ba teex Ndiaye Tine daan na Alboury jël bu rëy Ndiaye Tine Bawol mbooloo daan na Alboury toog ci kawam Ndiaye daan na ko jël bu rëy Bawol mbooloo daan na Alboury bu kaay baax jël bu rëy ba ba jeex na ndeysaan ñaari xale yi bëri nañ ko ci jom ci fula ak njàmbaar ndeysaan ña ngay waxante ña ngay waxante ña ngay waxante ñaari mbëri taxaw nañu jam teeri bu kayaar moon woon ginnaaw Zetly bu xam sa cosaan la nu jàkkaar lool at bi sifle na combat ba ñi ngi leew too jam teeri Zetly ñi ngi leew too leew too bu diib jam teeri moo yor ngemb lu weex moon woon ginnaaw Zetly la nu jàkkaar lool ñi ngi leew too ñaari mbëri ñi ngi leew too ñaari mbëri jam teeri ak Zetly Thier ak Zetli Diop Thier ak mu xam sa cosaan ngi leew too jam deew na song ko daje nañu daje na Zetli kor na ko Zetli kor na ko Zetli kor na ko Zetli na ko kor na ko Diop Thier door na Zetli fayu na xeex nañu xeex nañu Diop Thierry moo jóge Kayar Jet di jóge xam sa cosaan dina Diamond Events Jet li dóor la Diam Thierry fayu na Diam li songoowaat nanu Jet dafa tëye ñaari jàppante waat nanu Diam bëri nañ ba mi-temps dellu siwaat ku ne dem nga ca say mbokk ñu yàbb la dolli la wax la li nga war a yokk ak li nga war a wàññi mooy li nu naan wàllu teen ku ñëw ca pind ba ngay yam ma xool ba xam la nuy changé jam ceeri seet li ñu ngi jam ceeri seet sànni na jëm teer yi mem na topp ko setli mem na setli cokkaas na setli cokkaas na jëm teer yi cokkaas na ñu ngay lew too setli door na jëm teer door na ñu ngay lew na daja nañu jëm teer yi setli jëm teer yi setli songo wat nañu jëm teer ba jàpp na ngeem ngi déglu te kenn mayul sa dara Jatlé loxo ba lay dindi Diam Terry teq na ko bëtt na ko wër na ko ndombo Diam Terry daf ko teq jaar ca wet ga bëtt ko wër ko ndombo daf ko bëgg a yëkkati li bañ na jet li bañ na fa jam teeri yegg sori na ah tuur na ko jam teeri daan na set ah tuur na jam teeri daan na set jam teeri bu kayaar daan na